الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقين لسان سنبرم سبحانه وتعالى نوكا يسانت في خيوال ميغا خمني لط لنكي سانتك لط لنكي لمكو بقي جلدي ميغي نعم سنبرم سبحانه وتعالى مصد أيوامي خيوال خيوال sang ba muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaam ak waa këram ak képp ko topp seen yoon de xeeñtu seen mboor ba keroog pencum yàlla mbokk julli di ñu dénkaat sunu bopp di leen dénk ragal sunu borom subhaanahu wa taala ci def lim nu digal waaye bàyyi lim nu tere mbokki jullit yi sunu borom subhaanahu wa taala day dafa bind àdduna xereñe ko xereñe goo xam ne képp kuy xool amam xel danga gis taar bi yàlla taarale àdduna ci ni mu ko bindee ku amulum xel sax di nga ko xam ndax fes gu mu fes ak landi gu mu landi sunu boroom ba mu ko bindee ba noppi mu wax doomu aadama ak lu mel ni moom ndax xam gi mu xam ni ay xebetkat lañ doomu adama da cee raw ku mën a xebet boroomam wa daraba lana mathalan wa nasiya xalqa قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره ورسول الله سبحانه وتعالى بما بندي ادنا بنوبي دا فا جوخن بندم مومي جوخار بي نياي خبات ني خول لين ديما بند بخم امنا ديفا ولا ديت الذي خلق سبع سماوات طباقا سونو بروم ما بند جوروم نياري اسمان تك لين موي تك لي بو bo xamantene ben wengu ci ben daanu wu ci ben benn xàppatikuwu ci yàlla ne ma tara fi khalfik min fi khalqi rrahman min tafawut neena na duñ gis mukk ci bindub suñu borom bi ayib yàlla ne farji al basara hal tara min futur delul xoolaat batay tey ndax dañ ci gis manki manki summa arjic al basara karratayn yanqalibu ilayka al basaru xaasian wa huwa xasiir nee na boo delluwaatee sa bëtit di xool doo gis lu kéemaanuk sa borom kep kuy jongel xebat kep kuy jongi wut sik ci mbindum sunu borom mi gatch ak torox rek nga ci jele yalla ne wala qad zayyana as-samaa dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lis shayatin sunu borom neena ma taral ad asamaan aduna si sii taral ko taaral ci defal ko ay lampe yu leer muy bidew yi mu am ay njariñ yu bari njariñ li ci yàlla njëkk tudd mooy taaral asamaan su guddee ba nga xool asamaan si da nga gis lu rafet nga xam ne ki bind lii ku matt ak noonu waaye rujuman li shayatin sheytaane yi nga xam dañ këf wax indil seeni sheytaane sunu borom di leen ci sànni ay jum waaye bi ci des mooy ngeen di ci jubbantikoo su ngeen bëggee réer li tax biha fi zulumaatil barri wal kon ñetti fonction yooyu la biddéew am yàlla na nak wa atadna lahum azaba sair kep ko weddi nag ginnaaw ba lii leer ci yow mbugal dong lay xaar amu leneen mbokk jullit yi ginaaw ba sunu borom xere xere ñe bind gi daf ko teur nak ci programme bo xamni bu tollo la pour nit ñi mëna dund dafa teur aduna bi ci programme bo xamni bu tollo la lépp sunu borom subhanahu wa taala réglé ko ba mu yem ci dundug doomu aadama ak leneen lu dul doomu aadama sunu boroom a ngi wax ci alquran ba tey nii qul a innakum la takfuruuna billadi xalaqa al arda fi yawmayn waaw laaj leen ndax ñoom dañoo bëgg a wedd yàlla mi bind asamaa mi bind suuf ci ñaari fan suuf yàlla nga ko bindee ci ñaari fan wa tajcaluuna lahu andaadan ngeen bëgg a defal yàlla moomu ay moroom yàlla loolu jaaduwut ndax zaalika rabbul aalamiin kooku mooy borom bindee fii fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha neena mu jël suuf soosé sampat ko ay montagne ba mu deugar lol wa baraka fiha mu barkel suuf ba taxna lo ji mu sax di bu neexon sunu borom mu def ko matière bo xamni do ci ji dara mu sax way wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha mu regle ko nak ba dund gi yep yam ci li wara soxla ñun fi arbaati ayyamin neena na loolu lépp yàlla ko def ci ñeenti fan sawa al lisaa'ilin ci ñi nga xam ñoy laaj kon programme ngi noonu bi maanaam yalla bindu bindul àdduna bi rek bàyyi ko noonu sànni ko way daf ko teur ci programme bo xam daf ko régler ba nit ñi mën ci dund tangor wi yam sedd bi yam dal gi am fi ne bu neexon suñu borom mu bayyi mu tang tangor boo xamni ne kenn du fi mëna dund ndax amna na ay planète yo xamni ne kenn mënu fa dund planet bi ñu dund muy bu suuf si moom la yàlla waajal ngir dund waaye am na planète yoo xam ne fa dem balaa am ñeenti minute nga faatu ndax foofa yàlla waajalu ko ngir dund waaye fi yàlla def fi atmosphère bu dal boo xamante ne ëpp yeesul tàngoor weeg sedd bi den dara du ci faat doomu aadama waaye mu rek la suuf si ba mu dal moo tax mu ne ma def ci ay sampat nde bu neexoon suñ borom mu bàyyi suuf di yëngu rek nit ñi duñ fa mëna taxaw duñ fa mëna tabax duñ fa mëna def dara waaye neena ma rek la suuf bam ne kekk yëngatuwut waaye ma defal leen ay mbell ak dund dundat ci biir suuf su ngeen bàyyee mu sax su ngeen bëggee ndox ngeen gas naan loolu programme bu yàlla la mbokk jullit yi sunu borom pare ci loolu nag daf fee wàcc ay nit sàkkuwul ci ñoom lu ñu respecte norme yooyu rek pour mën a dund saa suñu violé loi yooyu yàlla tëral ci kaw suuf ñoom ñoo ciy loru ndax yàlla moom dara du ko lor dëkkal fi nag lu ko ci ay jaamam jaam ñooñu bokk na ci doomu aadama yàlla nee wa ila samuuda axaahum saalihan qaala yaa qawmi icbudu allaha maa lakum min ilahin gayruhu huwa anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha nee yow doomu aadama yi yontu yàlla saalix may wax ay nitam de ni ragal leen seen borom te jaamu ko moo leen sos ci suuf ba pare dundal leen ci kaw suuf fastaxfiruuhu summa tuubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib di leen bari lu ngeen koy jéggulu tey tuub jëm ci moom ndax ku jige la te ku mën a wuyu ku koy woola kon programme baa ngi noonu yàlla bind na ko wàcce na fi ay nit ak i mbindeefam ya ko soob pour ñu dund ci suuf soosu dund ko dal kon nag saa yi suñ demee ba bëggal violer loi yooyu yàlla tëral ci kaw suuf salfaañe ko bi maanaam loolu lu muy indi mooy nit ñi ak ñu dul ay nit ñi dund ci kaw suuf seen dund ci boppam mu ngi ci danger seen dund mu ngi ci danger doomu aadama yi mënuñoo dund lu dul ci programme ci programme boo xam ne ay loi moo koy tër muy al qawanin al ilahiya mooy ay qaanuun yoo xamante ne yàllaa ko tër ngir ñu mën a am dund gu dal dund gu teey saa yi suñ ca soppaxndikoo yëfi doomu aadama ba sofaane ko ni ko yàlla binde woon rek ñu ngi ci problème moo tax sunu borom di dellu di fàttaliku loolu di fàttali loolu ni mbir yi bu ñëwatee di leen ko teg ca balance yu maandu mbir yi di leen ko teg ci balance yu maandu awful kayla wala takunu min al muxsirin wa zinu bil qistaas al yàlla nee na su ngeen deen nattati na mat bu leen wàññi bu leen ëppal waye wa zinu bil qistas al mustaqim su ngeen de atteti wala ngeen di natati na teggu ci al mustaqim lol nak dund gi yépp la même lek sax bu ëppee rek lor lek limi bax bax bu ëppee lor garab gi nga xamni sax da ngay da nga febar ñu fajal ñu bindal la ko ne la demal nga faju ci ñu la day ci naan benn doom suba benn midi benn ngor nga dem boole fukki doom naan ko ci suba gi dalay ray te pourtant garab bu doon faj la kon wa zinu bil qistas al mustaqim lépp lu yàlla bind daf caa def bi qadarin maalum donc da cee def benn quantité boo xam ni wërte ëpp wërte yées saa yi su ëppee lor waaye bu yéesee gën a bon yàlla ne wala tabxasu naasa asyaahum wala taasaw fi l ardi mufsidin yàlla ne bu leen yéesal li nit ñi am ngeen di ko wàññi waaye bu leen yàq ci kaw suuf nga xool a rabt bi am ci diggante wasinu bil qistaas mustaqim ak wala taasaw fi l ardi mufsidin ban link mo am ci digënté na ngeen tek mbir yi ci yoon te bu leen yàq ci kaw suuf lool bo amé li ñu tudd ab ruju indal balaax moy bo delu waté ci chatul aaya nga delo ko ci fa aaya ñaaral ba tambalé lim la bëgg wax moy kon dafa melni adamu wasni al ashyaai bil qistaas al mustaqim yuaddi ila al fasadi fi l ard manam ñak tek mbir yi ci yoon moy indi yàq ci kaw suuf kon fu yàq amé rek xamal ni am na lu ñu waroon a def defuñu ko am na lu ñu waroon a lu ñu waroon a maandu maandu wuñ ca mbokk jullit yi li ñu tudde faajaatul ahad bisu altine euh, euh, dimanche bi weesu Sénégal xëye nañ njombelu rëy muy benn accident boo xam ne bu metti la amee fële ca Kaffrine ñeent fukki nit wala lu ko jege wala lu ko ëpp tuuti faatu ci yàlla yërëm leen yal na yàlla xare ña ca doon ay jullit àjjana yal na yàlla dëfal seeni mbokk te wóotalal leen lu gën li ñu ñàkk ala kulli xaal lu metti la ndax ña ca faatu ñii ay gone yu amoon ci ñoom yaakaar lañ seeni waajur amoon ko ci ñoom bal ñu taxawoo woon seeni waajur taxawaay boo xam ne ñoom rekk lañ fa féete woon ña ca des ay wayjur lañ yu wóofoon senu njabot yor leen comme ni wayjur de yoré njabotam njabootam ay jigen lañ ñen ñi dañoo won lor ña ca dess sax dañoo dem and ak seen lire yu ndaw da ci gëna daw yaram moy lola ko xamni bi auto bi defé sok dom ji dafa fi tax genn ñu for ko waye bimu mu ni dom ji faatu mu ne wan leen mako ma gis ko bala ma faatu bala faatu ñu tëralal ko ci wetam ñoom ñaar ñu ànd faatu la chaque ni loolu ki doon sabab ba loolu am moom xamut li mu def fu mu toll maanaam xamul danger li mu def fu mu toll mbokk jullit yi loolu lu metti la muy loo xamante ni néew na lu muy am ci àdduna ab sox bu am xaw a jege ñeent fukki nit wala lu ko ëpp faatoondoo ci te yàllaa xam ña ca topp nu muy demee yàlla yàlla saafara ña ca tëdd te delloo leen ci seen sago waaye loolu bu ñu koy xool dafay delluwaat rek lenn ci problème yi nga xamante ni société bi moo ko am parce que ñun dañoo maanaam dañoo bàyyi yoon wa bu yàgg maanaam ñun fa ñu waroon a jaar dañ koo jàdd muz amadin baid maanaam ñun dañoo teggi yoon nekk ci maanaam ci ab àll di ci dox lu yàgg yàgg yàgg nag lii di ñëw lépp dafay refléter manam ñak jadd ñak jaar gi ñu ñak jaar ci aw yoon amul leneen lu muy bané amul nak ben sanction bo xamne mën nañ ko tek wala ay uqubat yu ñuy tek ba tax li safaraw fek delo wuñu li nga xamanteni mom modi bu sala bi nga xamne mo ñu mëna tek ci yoon ñu delo ko fañ ko fam nekkon ana ñu delu wat ci repère yi ñu amoon dañoo perdre ay repère bu yàgg yàgg na mbokk julli ni ñaata ci ay accident tey accident routière lañu wax waaye ñaata ci ay accident lañu dund yu gën a metti yii ci suñu jëflante ñun nit koo xam dafay taxaw ni diw feeg deewut du ma dund man feeg amul gàcca man du ma dund feeg amul problème man du ma dund feeg tëjuñu ko kaso man du ma dund accident boobu moo gën a garaaw accident bii te loolu accident la ci wàllu jëflante ñaata lañu am ci ay accident ci wàllu alalu mbooloo ñett nit ñeenti nit dajaloo ni ko dariix te du mujj fenn accident boobu moo gën a garaaw mën naa am sax moo jur mën naa am alal yooyu ñu jël di ko lekk suñ ko delloo woon fañ ko war a delloo accident yi du am waaye ñaata lañu am ci ay accident ci wàllu hôpital dégg ngeen hôpital dal jàmm li fi am fan yi ñu naan ay 74 personnes ñu ngi faatu nañ ak ñeneen ñu nekk ci danger ndax lan ndax ñu ne scanner ba ca boppam moo paan ci réew moo xam ne ngi épingle nit ay milliards yoo xam ne ñu ngi ci tëdd cest à loolu moo gën a garaaw fuuf li nga xamante ne moom mooy li ñu am ci accident bi doonte bu metti la wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min bi uxtiha wa axadnaahum bil azabi laallahum yarjiun sunu borom nee na bis bu ma leen tegee dara ngeen të leneen luy ñëw dee gën a metti muy ñëw day gën a metti pour ngeen dellu si pour ngeen dellu si xam ne perdre ngeen repère yàgg na maanaam nun danoo perdre repère yàgg na ci àll lañ nekk aw man dig nag nit mënu cee nekk jàpp dina tegu ci aw yoon mbokk jullit yi man de jàpp naa ni ci sama xalaat bu gàtt ngir nu mën a dellu si waat teguwaat ci yoon wi ngir mën a wàññi lii di xew ndax lii moom moo dund gee ànd mbakkeen moom ومن لم يمت بالسيف maata bi xayrihi tanawaat al anwaaru wal mawtu waaxidu ku deewul ci accident da nga dee ci sa kawam lal wala nga dee ci leneen dee moom faww day am waaye nag dee goo xam ne loxob doomu aadama la ciy dugg mu ànd ak tayeef googu dee la ñuy wax ne nit moom bu dee jotee day dee ala kulli xal ña ca faatu woon ña faatu woon ci xeexoo bi seen bis boobu mënuñu ko woon a romb suñu faatuwul woon ci accident boobu it suñu tëddee seen i kaw lal dañuy faatu fama kaana li nafsin an tamuuta illa bi idnillahi kitaaban muajjala maanaam léeg téere la boo xam ne yàlla bind na ko ba ngay judd da nga koo indaale mënoo ko woon romb mukk waaye li ñuy wax kay ak di ko naqarlu mooy déegoo xam ne ay nangami nangam da ciy jóge di ci yàqoo ci ay bakkeen ak nangam te loxob doomu aadama tayeefug doomu aadama dugg ci ñun foofu la ñuy wax waaye waxuñu ci jëmmi faatu bi ci boppam kon ngir ñu mën a wàññi loolu xew-xew yi nga xamante ne ay catastrophe la yoo xam ne ba fa jógee alal ju dul jeex moo fay jógee benn mu doon ay bakken yu rot wala alal ju saaw alal joo xam ne mënees na waroon na koo jariñoo mu saaw walla ay barab yoo xam ne defaroon nañ ko ba mu jekk ñu xëy yàq lépp loolu jàpp naa ne bokk na ci mooy ñu gën a soxlawoo wàllu éducation yar éducation ak muraajawaat man corriger matu taalim bi nga xamante ni moom la ñuy jàngalee cycle bi nga xam ne ci la ñu teg ndaw li mu jóge ci primaire ba àgg université cycle boobu dañ koo war a muraajawaat maanaam dañ koo war a xoolaat bu baax xoolaat ay baraami jëm ak maraami tarbiya yi nga xamante ne moom la sunu réew teg ñu bañ a doyloo rek yar ab sénégalais bu gëm ak Sénégal gëmi aadaam gëm ak Afrika gëm nangam ak nangam comme ni ñu koy waxee ci euh, tasrixul madrasi loolu ñu yokk ci nit ku nite gëm yàlla nit ku nite te gëm yàlla nun amuñu problème xam-xam réew mii amul problème xam-xam milliard koo ko sàcc rek borom xam-xam nga baa doona du sàcc milliard képp ku ñu sàcc na milliard te muy dëgg rek borom xam-xam bu mag la milliard fa mu nekk loxo borom xam-xam doo nga ko jot baa doona mun a sàcc milliard kon amuñu problème xam-xam mais problème mu nite lañu am te loolu li koy def nag mooy yar bi moo des waaye tànn ay jàngalekan yoo xam ni yu am compétence lañ ñu takk takwin leen takwinan jayyidan ñu former leen formation boo xamante ni bu dëgër la dérive yi ngay dégg yu bare bare ñu ne ab jàngalekat def na ko recensement yi ñu mujjee def ci ay gone yoo xam ni ay gone yu jigéen seeni jàngalekat jaar nañoo ñoom fu ñu wërta jaar lu tuubu kawe la kooku est ce que bañ koy génne efi wala ca fastef wala yeneen barab yi nga xam ne ci la ñuy yare jàngalekat ya est ce que waajaloon nit kuy dem ci terrain bi pour war jàngale ñu sant ko lii mu dem def leneen kon wàllu éducation bi ci boppam waras na ko xoolaat parce que nit buñ koy wax jàng tax xam moo tax waaye xam buñ koy wax tamit jëfe moo tax man jàpp naa ne kon sunu manzumatu taalim faaw ñu muraajawaat ko te bañ di copier rek di coller dem ci rew gis fuñu jaar ba ag ci ben réussite nga jël lañu yor bëgg ko ñëw diko appliquer sa rew loolu du sotti li jig mbott ci de jigu ci jinax ñaari mbott i'tinaahu bi dawr al madaris al diniyati wa ja'alaha fi ra's al qa'imati wa i'tibarha kuhufa tarbiyatin wa ta'limin tuzawi al madaris al hukumiyati fi al inayati wa tarqiyati wa tahdhib manam faw baye xel école yi jàngale diine ak jox leen yitte nak xamni école yi barabi kay la waye barabi yar la tollo la len temu ak état école yi mu momal bopam bal fexé sax ba jël dara yoyé duggal ko ci moomeelu nguur diko saytu comme ni mi sayto école yi ñu len di respecter di len xol te mu jaar nak ci aw yoon moo tax ñuy wax te mu jaar ci aw yoon waye fexé yit ba la ca nek te du ñu génné ko jubanti len ndax madarisul asri yi nga xamni ñoy jangal nit ñi seen aduna wuté wuñu daara yi nga xamni ñoy yër nit defar ko ba mu doon nit kon ñaar yoy suñu andé di dox ki di defar nit ki ki di ko janggal ñaar ñoñu buñu soto nit buñ ca noppé nit ku mat nit lañu am kon benn tank bi ñuy doxee rek lu mu dal japp na ci la bok té réew mi ñaari tank ñoo mëna dox jamm am képp ku japp ni mën nga fee doxal mennum njàng te bàyyi njàngum diina ginnaaw sa programme du dem fenn nit ñi duñ ko nangu nit ñi duñ ko nangu te loolu état yi am nañ ci expérience yu dul jeex daara yi nga xam ne ñoo ubbi di ay internat yeneen yi di ay daara yi franco arab ku fa dugg da ngay fay xaalis bu bari lañ fay fay léeg-léeg dañuy dem ba fay cent mille francs kooku koy jël doomam du ko fa dugal ak góorgóorlu dong la day xëy di wàcc école la ngi ci wetam boo xamante ne gratuite la soo demee doo fay dara mu mën ko faa bàyyi dem di fajal doomam fukki junni wala lu ko gën a bari wala lu ko gën a yées kon problème bi war nañoo xam ne nit ñi dañoo gëm njàngum diine feek ñu ngi koy marginaliser nag di ko jéem a bàyyi bàyyilu ak fàtte fàttelu maanaam du sotti faaw ñu jéem a jël au sérieux daara yi alquranul karim yi defaraat la ca dul yoon am na ca nag comme ñu amee ci yeneen barab fexe koo jubbanti ba mu tegu ci njàngaleem diine ñu boole ko njàngaleem àdduna ñu sotoo sénégalais bi suñ paree ci moom rek ñu am sénégalais boo xam ni du sàcc du fen du wuruj bu tegoo ci ab tali yoru baarub oto dina xam lan moo nekk ci danger bu rey bakken ba lépp loo xamante ne dana tax mu rey bakken du ca dugg yii dana ko wàññi li ca des mooy ñu moytandiku di politiser yu mel nii ñu xam ni ñii faatu njabot lañu bayyi ño xamantene lañu ñàkk dootuñu ñuko amati ba ilaa yawmi diin ñi seen bay lañ ci ñàkk ñi seen nday lañ ci ñàkk ñi seen doom lañ ci ñàkk bu lolu amé ba noppi ñu dégg ay politiciens ku ne di xëc mbir mi diko politiciens day gëna yok mbir mi metit bu ñuy politique ba ag ci ay ñu rot nañ taxaw léeg la nga dégg ñu ne lii ba ñee defee lee moo li am bañ fi tëggee ay bool mo indi li ñu ne ak ah, déedéet yeen ba ngeen fa wootee nangam la li ndi ay julit yo xamanteni ne nañu ay julit lañu waxuma la fogg ñi fowé doomu adama yi mais mokke gi ñi mokke ñi ñak seen mbokk di joy seeni ronkoñ feragut ñu leen di fowé ak di leen caaxaane ci yo xamni ne jëmul fenn fokk ñu respecté mémoire ñi nga xamanteni ño faatu ñi faatu duñu ay mala ay nit lañu du ben nit du ñaari nit ñeen fukki nit ak nangam ño faatu kon fokk politiciens ñu respecté nit ñi faaw xam ni ñii faatu ay nit lañu suñ dee taakalante nañ bàyyi ba génn ci lii mais lii du lu ñuy politiser lii lu sérieux la tàmm nañ lépp lu ñëw ci réew mi ñu politiser ko ba laj problème ba dëgg-dëgg dootuñu ko mën a teer ak leeti kon wax dëgg yàlla lii dafay gën a yokk ay frustration ci nit ñi day tax ba looy waxati nit ñi duñ ko faale sax bakkanu doomu aadama bu faatu du caaxaan boo jëloon milliard jox ko nit fayoo ko bakken kenn mënu koo jënd mën nañ koo defal nag mën nañ koo delloo ci yàlla mais mbir mi ñu jël ko au waaye nag bëgg koo def mbirum politique ku ne di ko def ko récupération politique wax dëgg yàlla loolu day gën a yokk ci mbir mi xaraw te lu lijjanti dara nag parce que lañ koy mujj séddoo ko ci seen biir ba mujj naax saay bi ci des mbokk jullit yi iadatu tarbiyati al usariya faaw ñu delloo yaru kër yaru kër moo daan dimbali école école temps ba fa xale ba di def dee su ko fa yar yar ba war a am waaye des na ko fa teg nag ci aw yoon ay mécanisme la fay jëlee waaye nday ak bàyyi ñooy yar gone ci kër te booy xool nit ñi ci boppam dañoo découragé ci yar seeni doom talatuñ ko sax ñi ngi xëy jël seen njër teg ko ci àll bi di wut lu ñu am moo xam farata la moo xam sunna la moo xam sax tegandaay la waaye talatuñ ko wutum alal ci la nit ñi nekk ñu ne bokk kon teewoon ñoo bàyyi jigéen ñi ci kër gi ñu ne mukk na jigéen ñi génn ñoom it ñoo góor a yem rek yàlla yemuñu ñu ne ah, ñoo yem inama zak inamal loolu laysa zakaru kal unsa la yàlla wax laysa góor ak jigéen yemuñu ne déedéet góor a jigéen a yem ñu wax jigéen ñoom it génne ña fa desa kus néew ci biir kër ya téléphone ñëw jël lañ dese woon ci waxtu ñu bàyyi xale ci mbedd yi ñu taxawal xale yi ñu gis ni ñu taxawal ci mbedd yi noonu la ñuy taxawalu ci école yi tam ñooñu bu ñu màggee ci situation bii ñu nekk duñ jëmal réew mi benn fenn fu am njariñ faaw ñu delloo si al tar ak tarbiyatul usariya bu njëkk bàyyi dana toog yaay toog seen maam léegi sax mu wéttali leen ci kër gi di leen léebal ak di leen cax di fem gone yi xale foofu ñu femm ko parce que gone noonu la tudd gone mooy goo nekk des cay nekk rek gone mooy goo nekk boo ci nekkatul rek moo ko ndoxa yam day wal fi gën a suufe ngir yëkkati ko nag dafa soxla woo li nga xam ne moo di alhimma waaye jéem a dox diggante gone yi ak li nga xam ne mooy mudillaatu zaman li nga xam ne àdduna teg na ko ci suñ kaw mënatuñ ci dara bokk na ca mooy mawaaqi'u tawaasul ijtimaai les réseaux sociaux li mu yàq réseaux sociaux yi goolo yàq ko ci tool li mu yàq waxuma la gone yi de mais mag ñi sax li mu ci yàq waxuma laa gone yi parce que dem nañ ba gis ne géej mbàmbalaan la goo xam ne mënatuñ ci dara jekku nañu réseaux sociaux yi li ñuy yàq ci jikko li ñuy yàq ci nit li ñuy yàq ci doomu aadama bu nit ñi bàyyeeg réseaux sociaux yi li ñu bëgg ci nit ñi buñ paree ci ñoom ñu am ay nit li ñuy am mooy ay njaay àll wolof dafay fax ni nit ku ñu yarul nit ñu ñu yarul moo golo golo bu nekk ci tool yam bu ñu waxtaanee lekk li ci tool bi bu ñu xeexee yàq li ci tool bi te loolu rek mooy am am na ñoo xam ne seen jàmmoo du jàmm ci ñun saa yu suñ jàmmoo rek lekk liñ yor suñu xeexee yàq liñ yor pratiquement politiciens yi fo gis ñu jamm rek musiba amul musiba amna fo gis ñu nañ jubo nañ dankam lepp lu ñu rew mi am ñu lek waye buñ ne tay xulo amna na buñ xeexee yàq li ñor loolu nit ku ñu defarum la waye li ci des mooy fexe ba moytu ndiku liñ mu salsalaat yi sketch yi ñi tek bu ñëk dañ daan wax ay tubaab ñu daan indil ay seri waye legi seri yi wolof yi di def wala plan yi wala jola yi ala kulli hal li waa mi di def gënte yes li tubaab bi daan def loo musul woon xalaatu dinañ ko wax ci télé nit di ko dégg léegi ñu ngi koy jëf xale yeeg mag ñi ñëpp di ko seetaana doom ñu di ko wax ci làkk bi nga dégg xale bi jàpp ne lii lu normal la néew na ngay jàkkaarloo ko xale mi wax te daggul aw saaga teg ca jàpp nañ ni wax ji dañ ko war di mixé ak saaga fu toll ndax loolu télé yi théâtre yépp théâtre néew na booy seetaan Lulu ni so àggee saaga yi ndey ya boo koon wàññoon dana ma téeméer ak lu lu sketch ba gatt gatt ñu wala ñu validé lolu mu jall ay télé di ko waye lu dur al fannanun ay artiste yo xamanteni ar lu bax la ar lu lobul la mo xam ci ban gan wet la fek andul ak lu aram waye ñu jël sunu ñi tudd ñu ay artiste té ñu bu ñu wax artiste dañu jappal moy way kat te way lu néew la ci artiste ci aar maanaam waxuma la sax lu bon li ñuy tasaare ci réew mi mais naïveté gi nekk ci ñoom maanaam ni ñu nekk ñoo xam ne la ñuy wax kenn xamul lu mu doon gone goo xam ne bu génnee xale yaa ngay xam ñee ngay daanu suñ paree ñu ne lu mu wax ñu ne kenn xamul lu mu wax buñ dajalee li wax ba noppi ñu ne lii la doon wax ñu ne waaw ñu ni lu mu doon wax ñu ne kenn xamu ko yëkkut waxul lu ak am ngooñ xale yi kooku mu nekk seen idole koku nek sen référence ñuy référé wu ci mom fan la réew mi jëm waye tawafihul umur ñu ñak solo ñu moy tuddu ko ci xale bi bi ci dess mbokk jullit yi moy muraqabatul misaniyat al muxassasa li a'mal ibn taxtiya alal ji nga xamanteni budget la bu ñuy voté muy dërëmi nit ñi ak seeni ñaar dërëm ak seeni dem ak seeni daqaar ñu dajale ko muy ay budget yo xam dañ koy seddel ci li tabax réew mi ñu fexe ba teg ci bët nag bàyyi xel lool ñi ñu ko jox bépp ministère boo xam ni dañu laa votel budget jox la ko ni la atum at mii na nga ci def nangam def ci nàngam def ci nangam ñoom bàyyi la xel teg la bët ba xam di nga ci jël ab dërëm wala ñaar dërëm yóbbu sa kër wala def ci sa poos soo ko defee ñu teg jël ay sanction yu tar teg ko ci sa kaw ba yow dootoo ko defati keneen ku dul yow dootu ko def waaye feek ñu ngi jël budget boo xamante ni bu dee cent milliards la daanaka soixante milliards yépp ñu ni euh, budget de fonctionnement la ñun moom la ñuy doxee quarante pour cent yi nanga la parce que dix sept pour cent wala vingt pour cent mooy àgg ca euh, la tax mu jóg loolu xel mën na koo nangu cent milliards soixante milliards nekk budget de fonctionnement loolu mooy lan loolu mooy yëfi lan bi maanaam kaay ma yónni la dëkk sàngam soo demee nga joxal ma ko mille francs yi nga ne ah 700 yi laay passé de 300 yi laa ko mën a jox loolu xel mën na ko nangu te loolu pratiquement loolu la ñuy doxalee maanaam budget boo fi gis bu ñu nee la 100 milliards na xamal ni 40 pour cent wala lu gën a néew loolu mooy àgg ci base bi loolu laa chaque na tegul fenn kenn xamul lu mu doon kenn xamul lu mu doon li ñuy def ci ay séminaire yoo xam ne pour lekk alal kese la kenn xamul lu mu toll fee ne boo gis. maanaam euh, séminaire day takkarnaase pour écouler li des ci misaaniyaat yi pour lekk ko pour mën ko justifier la loolu faaw ñu dellu ci ginnaaw fekk ñu ngi dajale xaalis di jox ay nit ñuy lekk problème yi dara du ci réglé wu mbokk jullit ci des mooy ki xam ni moom mi nga xam ni moo sabab lu ba rey benn bakken ci tayeef rey bakken ci tayeef mooy jël luy rey nit dóor ko nit loolu rey tayeef la wala lu ñu tuddi sibhul amdi mooy nuru ak tayeef mooy lan xam loo xam ne soo ko defee bakkan mën na caa rot nga di ko def yéen ñiy dawal ay oto xam ni ay sénégalais ngeen comme ñun yéen a aye rek waaye démb waa hôpital ñoo aye woon barki démb ñeneen a aye woon suba ñeneen ay aye parce que ñun képp la duñu ay Ghanéen duñu ay Malien duñu ay sénégalais ñoo def lii ñun la ndax ki nga xam ne dafa yor biisu cent quinze personnes juróom ñaar fukki bakken nekk ci sa loxo ginnaaw yàlla ngay violer code de la route te xam ni xam nga li la ci nar a fekk monte ay pneu yoo xam ne yu usé la benn sax da ngay dem ñu rëddaatal la ko pneu yi dañ koy jël di ko rëddaat pour ñu bañ leen cee jàpp di génn ay troisième position ci tali yu xat yi di génn ay ligne continue yoo xamantene dañ la wax ne la fii nañ fi bañ a génn mu mu wóor na ne lii lépp lu metti mën na la cee fekk nga def loolu ba am ci problème nangami bakkan rot ci sa lox xamal ni loolu bàkkaar la boo xam ne xamoo foo ko yenniku sa diggante sa borom yow yàlla nee na wa man yaqtul muminan mutaamidan fiha wa خالدا allahu alayhi wa laana wa aadda lahu عذابا azima nee na képp ku rey bakken te tey ko yàlla waajalu la lu dul sawara da nga fa fekk merom yàlla akum rëbbam ak mbugal mu tar yàlla nee na min ajli dalik katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasadin fi l ard fa ka annama qatala annaasa jamian nee na dogaloon naa ci banu israila ni képp ku rey bakken te fekk ne dafa rey bakken wala mu yàq ci kaw suuf nee na mel na ni rey nga ñëpp kon képp koo xamante ne yaa doon sabab ba bakkanu doomu aadama rote ci sa lox xamal ni yow dog nga sa diggante ak sa borom sa borom mere na la waaye yow mi nga xam ne yaa yor luy lu bakkan mën a rot xamal ni képp ku roy bakkan même boo ko tayul xam ne da ngaa roy bakkan tayoo ko bakkan bu ne di nga ko kafaaral bakkan bu nekk di nga ko kafaaral doonte téeméeri nit lañu di nga leen wooral lu mu gàtt gàtt ci jigéen rek ku ci nekk ñaari weer yoo xam ne doo dog ci diggante bi xoolal nag koo xam ne téeméeri bakkan rote nañ ci sa loxo ñun la ku ci nekk di ko wooral ñaari weer la gën a gàtt kooku daanaka da ngay wax ni sa dund gi yëpp mën ngay nekk di woor te loolu mooy la ci gën a woyof ci ña nga xam ne ñoo ñoo ñu amut loolu nag lu muy jur mooy nit ki say yi su toogee ci ab valant ay ñaar ñaar nit dong nek ci auto bi wala kenn nit wala sax bakkanu boppam bi mom mu yek responsabilité mu xamne ay bakken lañu tek ci loxom wuru ko fowe wuru ko caaxaanal kep ko ray bakken nak ta tay ko mom l'islam li wax moy nañ la ray wa katabna alayhim fiha anna nafs bin-nafs wal 'ayn bil ayn wal anf bil anf wal udhn bil udhn was sinna bis sinni wal juruha qisas yàlla na kep ko ray bakken ta tay ko nañ la ray ku fakk jam jàmbur tay ko lañ fakk sa bos ku dag ba kenn nañ ko def ku dag nopp nañ ko def ku bu bëñub jàmbur nañ ko def ku jam nit nañ nat jam jam ba fam tollu ñu jam la lool rek moy di jënti problème yalla xam na ni ki nga xamantene day yor luy gaña wala luy ba bakken bu ko woron ni so tayé ba ba bakken amul wax dañ koy ray du nga wax ni ray dina fi joge de waye dina wañ ko lool su ko defé su yu mel ni bu ñu mer wala bëgg ñu wàññi coow li ba tax ñu jël ay mesures yoo xam ne duñ ko mën a appliquer wala suñ ko appliquer danañu indiwaat beneen accident bu gën a metti bi ñu amoon jamonoy mer kenn du ci jël ay mesures moo tax sax lislaam da wax ne alqaadi attekat bi saa su yëgee ne xol bi tàng na rek na teg dossier yi te dem toog yàlla na nit bu mu atte diggante ñaar na fekk mu ngi mer mesures yi ñu jël ñaar fukk la ak ñaar am na ci yu baax waaye am na ci yoo xam ne kenn mënu koo jëfe wala boo ko jëfee it la muy juraat du gën a yées lam defoon maanaam mbir ma ca reen bala am góom soo fa fekkee ay weñ du tàppatu weñ ja di ko ray mooy solution ba waaye da ngay faj góom ba su góom ba wéree weñ ja dem seen yoon dootoo gis weñ barakallahu li wa lakum fi alqur'ani alkarim wa nafa'ana allahu wa iyyakum bima sarafa fihi min alayati wa dhikri alhakim allahumma habib ilayna aliman wa zayyinhu bi qulubina wa karrih ilayna alkufra walfusuqa